kon lii mm. nu dal mm. du dara mm. ñoom maam ñoom da daan neex ci ñoom di naqari ci ñoom ñu ni muy neex ci ñun di naqari ci ñun rek kon lii moom bu ñu ko tiitalee dara ay jaar-jaar la rek faaqasnaahum jàpp nañ ay duma baxtatan ci mbeteel wa hum ñoom laa yas'uruuna yëguñ mbir ma kañ lay dal ci seen kaw yàlla nag nee nit ñi di jullit ñi di sénégalais yi bi suñu defoon lii may bëgg a wax mhm. lépp jàmm mhm. xat-xat yi nekk ci àdduna bi mhm. jafeñ-jafeñ yi yëpp dana dañ waaye dañ kaa nanguwut a def walaw anna ahlal qura bu fekkoon ne dëkk yi sénégalais yi amanu gëm nañ dëgg-dëgg gëm wa taxaw ñi moytu bokkaale yàlla ak mooy yàlla seen kemtalaay kàttan la fa tax na ubbil koon nañu ñun yàlla alayhim ci sénégalais yi ci jullit ñi barakaatin ay barke mina sama asamaan génne ndoxam bamu mu doy sëkk hmm. wala ardi ak suuf hmm. suuf itam xeeti meññent yi hmm. ressources yi ci nekk ak ay or yeeg wurus yeeg mboolem phosphate yeeg xeeti meññent yi bàyyi ko ci suuf yëpp sama borom ne ne kon dinaa waaye rek gis nga ko walakin waaye nit ñi kazzabu weddi nañu di def la leen neex ak nam leen neexee sama fu nag tax na fa aqasnaahum jàppe ne leen ay mbugal bekkoor tolof-tolof mm. mm. xat kiris mm. bi maa kaanu mm-hmm. ci saabu la nga xam ne nekkoon nañu yegg si buun mm-hmm. kon ñun natt yi ñu nekkee kiris yi jafe-jafe yegg kat-kat yi saa la nee na nun ñoo def loola tax ñëw mm-hmm. afaamina ndax day wóolu ahlul qura waa dëkk yi weddi waa ñi weddi yàlla moom ndax dañuy am xel mu dal nii rek an yaatiyahum ñëwal leen baasu naa sun ay duma bayaatan ci guddi wahum mbir moom ñoom naa imuun ah ndax dañuy jàpp rek nii rek yaakaar ne sama borom moom du leen ñëwal dara ndax dañuy wóolu wala dañuy am xel mu dal ne sama borom du leen dikkal ay dumaam ci heure gudde déedéet awaami ndax day wóolu alul qura waa dëkk yi an yaati um ñëwal leen baax sunaa sunaay duma du xan ci heure yoor yoor waxum mbir moom ñoom yàlla abun ñu nekk caaxaan ak fo afaami ndax day wóolu makarallaahi jayug yàlla mooy pexem yàlla mooy di la jox xéewal lépp yi dox mm. loo def it nga yaakaar ne yàlla da lay baal ci safaan mm. doo jéem a tuub doo jéem a def dara mm. loolu ku ko def ku ne yaa ngi wóolu pexam yàlla moo tax cheikh saydi ahmad tidiane sarif radiallahu taala anhu wóolu pexam yàlla nga bañ a wóolu pexam yàlla daf ko boole ci sart tarixa bi maanaam nga dégg nga ngëneel yi aju ci tarixa bi yëpp nga dégg ko tax nga nekk ci tarixa bi di tooñ nit ñi yore leen àq ko yore bor doo ko fay di rey nit ñi lu ne nga ci su ne nga ne seex aka gàddu seex aka wax wala tarixa bee ka wax déedéet soo ko defee génn nga ki tarixa bi bokkutoo ci sax far ok dégg nga ku baax mm. du wóolu nag ndax day wóolu makara laa falaa yaaman du wóolu makara yi jayug yàlla du ko wóolu mukk mukk mukk illal xawmul xaasiruun lu dul gaa yi nga xam ne dañu perte rek afalam yahdi mm. xanaa dafa leerul mm. lilladina ñeel gaa yi nga xam ne yari suudalu nañu mm. al arda aduna bi mm. min baadi ahliha mm. gannaaw ba ñu alege ñee fi fi jiitu woon an law na saaw bu ñu neexoon asabnaahum ñu jotale leen ay duma bi zunubihim ah seen a yi ñu def moo neexoon koy ma duma leen comme ne ma duma woon ñële da nga de waaye wan natbau daañu linkaañ ala qulubihim ci seen xol ya ba fahum ñoom laa yasman duñ dégg mukk mm-hmm. waare yi mm-hmm. gindi yi mm-hmm. tegtal orientation yi duñ ci mën dégg dara sama ba mee tilkal yooyu la dëkk nga xam ne jaaro naag ñoom mm, fenn jaara naag ñoom barab na xussu daañu nettali aleyka ci seen ay xibaar dëkk yooyu fi jiitu woon ñu gàntuloon yàlla fa ma jaaroon ak yow fa ma jaaroon nag ñoom man maay ku la nettali daa am lu mu bëgg yootu nag loo xam ne moo ñëw te ci xisa yi doon jàll hmm. wala xat jaatuhum ñëwaloon na leen hmm. wa rusulum sunu ay ndaw hmm. bil bayinaati ci lay leer nañ waaye fa maa kaanu nekkuñu li nu pour ñu gëm ba leen alquran ñëwalee téere ñëwal leen yénente ñëwal leen nekkuñ di gëm bi ma kazzabu ci la nga xam ne weddi woon nañ ko min qablu avant yénente yi di ñëw kazalika naka nii naka nii ñu linkaañee mm-hmm. seen xol yi mm-hmm. yet baw laa kasse mm-hmm. allahu yàlla ala qulubil kafirin seen gëmeekaay yi fi leer mënoon a jaar ba dugg yàq naa ko sakk naa bunte ya wa maa wajad naa fekkuñu li ak sarim ñeel lu ëpp ci ñoom ñuy sàmmonteeg di matal min ahdin ci kóllëre lu ëpp ci nit ñi la ma jàppante woon nag ñoom ca alastu bi rabbikum ca alamul arwaax toppatoo ci daara daara dara dégg nga waaye ñun waja naa fekk nañu sax ak sarum lépp ci nit la faasiqiin nit ñi daal la ci ëpp ay saay-saay lañu kóllëre moom matal ko tudd leen ticc ticc ticc ticc lu neex lañ ciy def mu ñëw ci yonent yàlla musa tuuti digganteem ak Firawna dana ci wax dundoon na téeméeri at ak ñaar fukk moom yonent yàlla Moussa digganteem ak yént yàlla ibrahima juróom-ñaari téeméeri at dox na fi mm. kon toog fii naan ibrahima yahud la mm. wala siif la ak yu kenn xamul mm. xew boobu ay siif xewul sax ndax siif ci jamono yént yàlla yankuba la xewee ci ibrahima la xewee ci sëtu yént yàlla ibrahima la xewee ma nga dégg nga ko dem ci mbir yoo xam ne ci kan lañ koy booloon walid ibnu di firawna dañ daan def ku fa toog rek ñu tuddee ko firawna ci misra ci boobale jamono dundoon na ñeenti téeméeri at nag ak ñaar fukki at pouvoiram nekk na ci ñeenti téeméeri at pouvoir boobu da yàgg na mosu ci gis lenn lu ko naqari di dongali rek bu daan ndékki mboccoor lay ndékkee daana am ñeent fukki fan nag du dem duus lii wir ah ku ne mën na laa jaay de ku ne mën na laa jaay de su la jëwi rek yàllaa ci jàpp ñu dem tuuti waaye muusa moo koy jommal su ma baas naa topp yabal nañu min baadihim gannaaw yonent yooyu ñu fi doon jàngale boobu ba léegi Moussa yonent yàlla Moussa ñu joxoon ko bi aayaati naa suñu ay kiimaan mooy juróom-ñeenti kiimaan yat ba loxo ba ati bekkoor ya dégg ah, tuufaan ma njéeréer ya teeñ ya mbott ma deret ya fargam faroon seen ah, dënn yaag alal yaag yooyu mm. yooyu yëpp dana ci ñëw benn par benn dégg de yabaloon nañ ko ilaa firawna mu jëm ci bandi boobu ñoo wax firawna wa malaihi ak mbooloom firawna di kuréelam di coalition di parteem waaye ba ñu àggee waaw kooku moom fadalamu tooñ nañu weddi nañu mm. bihaa cel lañu yónni woon yénti yàlla Muusa mm. saa borom ne jigu leen de hmm. fandur hmm. xoolal hmm. xoolu setantal kay fa kaana naka la nekkee aqibatul mufsidiin mujj ñi nga xam ne dañ doon weddi fa ñu mujj dee ba jeex na nag wala yént yàlla Moussa bu ma àggee ci na discours ba mu njëkk a jàllale loolu la borom bi nettali <laughs> waaw daañu sew incha allah waxaala wax na Moussa yéen di yàlla Moussa ne yaa firawnu yow firawnu inni man mii kat fekk ko ca biir pare ba ñëpp wër ko koy gëm loolu nit ñi mooy kilifa mooy yàlla yonent yàlla Moussa ne ko man rasulu ndaw laa bu màgg lool min rabbil alamin mm. te xaqiqun mm. aji yàlla la mm-hmm. aji jaadu la mm-hmm. ala an aqula ci ma ñàkk a wax mm-hmm. alallaahi waral yàlla illa alxaqa lu dul dëgg man daal lu dul dëgg mënuma ko wax ci yàlla hmm? lii may wax nag dëgg la xaat ji itukum dëgg-dëgg indil naa leen bi bayinatin ci lay yu leer nañ yi wane ne man yonent laa min rabbikum léegi nag sama mbokki ba boppu yi mm. di banu Israil mm. liggéey bi leen teg ak jaamulo gi ngi leen di teg mm. def leen surga dama bëgg nga jox leen seen liberté seen indépendant laa bëgg mm-hmm. <laughs> fa coow lay commencé mm-hmm. damaa bëgg nga jox leen indépendance totale farsil yabalal maa ya ànd man bani Israil bani Israil yi nga jël def leen ay surga def leen ay jaam coloniser mm-hmm. leen colonisation mm-hmm. boobu laa bëgg mu dañ mm-hmm. xanaa au mu tontu au mu tontu de ca lañ ko laaj bu bëggoon jàmm noonu lay def waaye bëggul jàmm ndax mbooloom ak pouvoiram nax na ko te kii kenn toppul ci moom xaala firaaw na ne in kunta ndegam nekk nga yow yent yàlla Muusa ji te di indi di dikkee bi aayatin ci kéemaan buy wane ne daal yow yënant nga loo mën a jommalee mbooloo mi mm. indil mm. bihaa ci kiimaan ba mm. in kunta ndegam nekk nga mina saadiqin mm-hmm. <laughs> ku repp da ngay ñeme bàkk na njaag de Moussa nekk la doon nga soxla woo nga naar ci guuxum soow de rek fa alka mm-hmm. sànni ne moom yent yàlla Moussa asaahu yet wa mu yoroon ndax yar wi nag defaloon nañ ko ci formation doo ko jàng fii mais yaa ko jàng saare gone yu gàtt ya hmm. fa ida ci noonu ci tàng-tàng ba rek hmm. hiya moom yadwa hmm. soobaanul mu nekk jaani ñàngoor mu binun bu leer bu mu wér nañ lii jaan la pala ba fees del del del rëj rëj yuuxoo fii jàppal fii bàyyil fii tabaarakallaahu kenn xamul na mu day yu sax ne nañu euh, foofu firaaw na yàq na fa njàppam tiit na ba yàq njàppam bu fekkoon koy am njàpp la tiit na ba yàq njàppam ba jaan ji ngaa ngi utali leen sànni ñaari jàppam yooyu le hmm. hmm? hmm. kenn mësul léegi li jëlee ci feebar boo xam ne nag ba keroog muy dee feebar booba bàyyiwu ko ndax tiitaange loolu kii ngay du yàlla kii ngay ndeke sóobkat la ndeke mënul affronter Moussa dóor rek la mënoon doon dóor gaa yi rek ba mu jébaale yent yàlla Moussa ba Moussa jàppaat jaan ji mu soppeekuwaat yat ñu nekk góor gi de li nga jëlee ci ñun mënu kaa delloosi ba léegi li nga jëlee ci ñun ba léegi yow Moussa mënu kaa delloosi la dee rek kenn xamul nu mu yam ci rëcc rëcc ne bu doylee ma dolli góor gi dolli nu wana saa na moom Moussa yadahu loxoom ci poosam fa ci noonu hiya moom loxo ba bay daa mu nekk lu weex tar yor ay ceeneer mm. li naaziriin mm. ñel way xool yi loxo bi dafa mel ni zone ci ni ko yàlla bindee hmm. waaye ba mu ko ci dugalee génne mu weex tàll hmm. Firawna da wax day jeex hmm. xaala wax na fi al mala u mbooloo ma min xawmi na Firawna kay moom mu mën a léegi kii mim na léegi kay amatul benn xalaat mbooloo mi ci boppam ministère yeeg préfet gouverneur yi ñoo ne ko inna haada naka sa waa ji di ñu jéem a aframte nii la saahirun jabarkat la alimun dóor képp day naxe rek di la jéem a menace di jéem a dox ci sa maayin bi nii lay jéem a waaxu waaye bañal ah firaam lu ngeen di wax ni mu ne yuri du bëgg na moom yént yàlla Moussa an yuxrijakum mu génne leen min ardikum ci seen réew mi daan leen ci pouvoir bi mm. dafa bëgg a falu kepp mm. dégg ko baax mm. léegi nag fa maa ta'muruun ana lan ngeen may digal a ah, gaa yi ne ko li ñu xam daal mooy arji teeylul rek hmm. defal attention nag kii duwul ku ñu sànjaafu de hmm. jabarkat la hmm. d'accord naxekat la waaxu waatekat la mais teeyal waakaafu ak mbokkam mi faire attention Firaaw ne waa léegi bu ma defee attention luy solution ñu ne ah dëkk bi am nay jabarkat am nay sëriñ am na lépp da ngay jëli ñooñu ñooñu jéem a affronté Moussa ba xam ba xam mbir mi fu muy mujj ñooñu nag suñ ñëwee tabaarakallaahu a kenn ku ci ne nang leen takkal ay ndombay tànk doo yem ci fay leen de waaye nang leen takkal ay ndombay tànk dolli préfet yi dolli député yi dolli de sécurité xaw ma la nag lan dolli sénat bi yëpp yi leen ndax lan ñoom ñu góorgóorlu ci li ñuy def waar si li yabalal fil madaayini ci dëkk yi xaasiriin mbir moom ñuy way dajaloo yaatu ko daañ la indil bi kulli saahirin ci bépp jabarkat alimun bu mun jabar lool jabarkat yi ñu dajale leen nag ñu ñëw wa jaa a ñëw na ak saharatu jabarkat saharatu firawna jabarkat yi firawna ya xaalu ñu ne waaw bala ñu ñëw ci liggéey bi wax ci njëlbeen mujj rafet ñun moom kenn duñu dóor ndax liggéey bi métti na métti goo xam ne duñ taxaw di laaj bopp xalimba dañuy laajandoor lépp mu mat la lanaa ndax daañu am laajan ak fay ak ak palute in kun naa bu fekkee ne ñun ndax nu nun laa wax de xaalibi waaw léegi dañuy laaj ndax laaj waaw kooku moom kilifa la di dégg nga <laughs> xam naa nit ñi daal kilifa rek te nit ñi ñooy kilifa rek dégg nga qaala firaaw ne na am waawaaw su ngeen ko gañee fexe ba ma jotaat ci pouvoir bi daal seen affaire dana baax wa innakum naka yéen bu boobaa la minal muqarrabin bokk ngeen ci ñuy jege état bi tabaarakallaa bokk ci ñi may jege ma takkal na ay ndomba tànk fii yàlla day tax mbir mi fii yàlla day taxañ mbir mi daa am lu ko tax a jóg tabaarakallaahu jabarkat yi ñëw indi adduna yi buum ay toni buum lañ ci indi kenn xamul nu mu yam indi buum yooyu riix na ay godron naaj wi tàng ci nit ñi niñ koy gisee mu mel ni ki day battarniku fekk ceeneer yee ci nekk noonu rek gaa yi yuuxoo Moussa Moussa tey ngay dee tey lu waaye doon jaay tey mu lamb mm. waxe da xaw ma wuri wa dem na kë nga waxe mag dem na ndeñ taali mm. laay tey Moussa tey wa bàgg war na mbaam wala bi mm. laay tey nga xam ne bàkk nga njaag yuuxoo Moussa fii tàcc fi yuuxoo nangam nangam lu ne ñu saboote ko Moussa ne sànni leen déggulo xaaluy jabarkat yene gis nga nag ormal gi ñu ormal yent yàlla Moussa ci lay yàlla sukkandiku ba defal leen lu leen defal ñoom jabarkat yi yaa Muusa imma benn hmm. an tulqiya nga sànni lii nga yor hmm. wa imma benn an nakuna nu nekk hmm. nahnu nun almulqiin di njëkk a sànni bi maanaam nahnu almulqiin di mbokk nekk ñu njëkk a sànni li ñu yor ko ormaal nekk njëkk la def ci la leen yàlla baale baaxe leen sol ci ñoom liimaan wax moom yent yàlla Muusa ay caalku sànni li ngeen yor ndax bu Muusa njëkkoon sànni du ñu xam ku yor dëgg ku yor caaxa waaye ñoom bu ñu sànnee seen buum yi ba ñëpp gis ne caaxaan lañu yor Moussa sànni yat wi la fa nekkoon yëpp yat wi maas la ko delluwaat diw yat ñu xam ne kii moo yor dëgg ne falamaal kaw ba ñu sànnee seen buum ya ak seen yat ya saxaru nax nañu ayu naa si bëti nit ñi nit ñi yaakaar ne lii dëgg la te fekk ay xeeti dóor dong la wastarhabuhum sàkkoo nu ñu tiital nit ñi na buum yooyu batarti ko nit ñi yaakaar ne jaan la fekk du jaan nit ñi tiit raj rajloo ba téere nee na ñaar fukki junni nit ak juróom dee nañ ca ca raj rajloo boobu rek waaye raj rajloo ma nga commencé nag ba Moussa sànnee yatam wa <coughs> ba mu ramassé toni buum ya fa nekkoon yëpp ba pare utali nit ñi nag ngang fas yéene mottali ko nit ñi <laughs> ci lekk lu yuuxu yuuxu goo xam ne fu waay toll dégg nga yuuxu gi Moussa jàppaat yat jaan ji mu soppeekuwaat yat mel na mu meloon jabarkat yi ne leen gën a jaaxal nag mooy dafa jàppaat jaan ji mu soppeeku yat yem na mu yemoon xamul fu mu dugal buum yi lii moo leen yóbbu arsa ñoom dégg nga wajaawu ñëw nañu bi sihrin ci ak njabar azimun gu màgg màgg waaw xëy naa wax yu nañu ilaa Moussa jëm ci yénti yàlla Moussa nakaani hee alqi sànnil asaaka sa yad wi fa ida ci noonu moom yad talxafu ma ngaa for benn par benn kom mm. ni ginaar di tiimee soq mm. wala ceeb wala dugub lu mu ci mën di doon da jël benn par benn noonu la jaan ji tiimee woon buum yi di ko log benn par benn mm-hmm. maa ya fikun la xam ne nekkoon nañ di ko dóor mm-hmm. foofu nag mm-hmm. fa sax na alxaqu dëgg xam nañ tey kan dëgg wa batala na maakaanu la nga xam ne nekkoon nañu yaamalu di ko jëfandikoo ci ay njabar fa xulibu gañeef na firaaw na foofa wan xale bu wàññeeku nañu ak mbooloom saaxirin mm. di way torox ndax ñëpp xam nañ ne firaaw na mm. ndeke da doon nax nit ñi kepp mm. foofa jabarkat yi ci seen bopp ñoom boobu lañ jël rek jébbalu ci tàng-tàng ba wa ulqiya sànneef na ak saxartu jabarkat ya saajidiin mbir moom ñuy way lunk na Moussa affaire bi yow wax firaaw na ndeke day dóor rek affaire bi yow la ci kanamu firaaw na de xaale firaaw na gaaw woote déclaration daar daar ne aman na gaa yi ñoo ne aman naa gëm nañu ñi ko gëm ñu ne aman naa gëm nañu mm. bi rabbil alamin mm. ci borom mbindeef yi mm. xam nga xam nga firawn dafa gëm la woon ne maa alimtu lakum min ilahin xayri ah uh, ak beneen ba ana rabbukumul aala yii yëpp mu waxoon ko yii yëpp yu waxoon la gëm loo nit ñi ne yàlla la moom xam na ne du yàlla sax waaye da doon nax nit ñi rek téere yi dañ lay nettalee benn bis sax nag misra demoon na ba soxla taw dëkk yi bekkoor lool dem ba ñàkk pexe ñu ñëw ci moom ne ko comme yaay yàlla nag dañoo bëgg nga tawal ñu daa na dugg ci xunti dama duggee ci xunti bi ne yàlla gis nga damay nax nit ñi rek ci caaxaan dong laa nekk nekk yaa ma suturaal nag lii xew di xew yëpp tey nag dama bëgg nga suturaal ma wàcce taw bi yàlla jay ko wàcce taw bi xëy ñu ne yàlla jigéen amul morom pourtant de yàlla la doon contre waaye waaye yàlla itam xam nga iblis contrôle na ko démb te gis nga pouvoir bi mu ko joxoon loolu du ci dara léegi na woote mbooloo mi xaale firawnu amantum ndax da ngeen di d'accord ak a gëm bi ci yent yàlla Moussa xabla an azana la njëkk may joxe autorisation lakum ñeel leen pour ngeen gëm waaye yéen lan moo tax ngeen adhéré wu ci parce mi te joxe guma autorisation yéen ay transhumants yu mag ngeen inna haada naka jëf ji ngeen def la makrun ay diil la makartumuhu yooy pexe woon ngeen ko di ko fexeel fil madinati yéen daal lekk pouvoir bi ngeen di fexe pour mu daanu yéen ak Moussa ndeke man maa xamatul fu may teg seen tànk sama tànk waaye yéen ak Moussa xam ngeen fu ngeen di teg seen tànk dégguloo li tuxriju pour ngeen génne minhaa ci dëkk bi ahlaa ñun dëkk bi waaye fa sawfa ta'lamuun daa ngeen xam ñun ak yéen kan moo yor pouvoir firaaw ne leen la na dinaa dagga daggatee ay seen ay loxo wa arjulukum ak seen tànk min xilaafin ci gàllawle loxom ndeyjoor tànk càmmooñ nii laay jëflanteeg yéen summa la usallibannakum topp dinaa leen pandar ajmaine yéen ñëpp xaalu gaa yi ne ko loo def baax na xaalu gaa yi ne ko jabarkat yaa ànd ak yéen yàlla Muusaa ne ko innaa nun daal munqalibuun way dellu lañu lu mën di xew gannaaw sunu dee ilaa rabbinaa te xam naa nag li tax nga contre ñu wa maa tanqimu contre min naa ci ñun illa an aman naa gëm gii ñu gëm nangul yent yàlla Moussa ci sa kanam loolu dong moo la déranger ñun daal lu gëm goo xam ne gëm nañu ko bi ayaati rabbinaa sunu kiimaani borom lama jaat naa ba mu ñu ñëwalee rabbinaa sunu borom afriq yàlla na nga sotti alay naa ci sunu kaw sabran muñ ndax kat waa ji tëkku nañu te lim ñu tëkkoo dana ko def comme tëkku nañu nag ñu tëkkoo dana ko def yàlla nag ñu may xol buñ ko mën a dékkoo muñ ko ba dañu dara duñu ci déranger wa fanaa yàlla nag ñu faat muslim yi ñu nekk ñoo xam ne dañuy jébbalu wammatu nekk ay jullit yu wér ceng xaala wax na firawn min xaw xaala wax na almalaw mbooloo ma min xaw mi firawna ca niti firawna ya ñoo ne firawna a tasar ndax da ngay Muusa yénti yàlla Muusa wa xawmahu ak bokki boppam yii nga bàyyi leen fi ak parteem bi li yufsidu pour ñi yàq fil ardi ci suuf si yaag ñoom bokku leen lu ngeen jëm nga bëgg leen fee bàyyi nii éliminer leen gaaw mu jeex wa yasaraka ñu seetaan la bàyyi la wa alihata ak sa yàlla yii la wër nii yow yi nga gëmoon yëpp ah tabaarakallaahu loolu dafa war a jeex xaala mm-hmm. firawna sanuqattilu mm. daañu ray rayee naa abnaahum seen doom yi wa sax yi daañu desal nisaahum seen jigéen ñi mooy la ma defoon bu njëkk ba bañ ne ma góor mooy daaneel sa nguur gi ku fi mën di judd di góor ma rey bàyyi fa jigéen ñi atte boobu dinaa ko dekkalaat ndax ñun nag la yàlla dénk pouvoir bi dégguloo wa inaa nun daal kaa ay dun way not lañu way gañe lañu way am kàttan lañu faw ko xum tiim leen lu ne ci suñ loxo la ne ah Moussa ñi ànd moom nag dikk ci yéen yàlla Moussa ne ko ah bi métti leen sëriñ taa yi affaire bi tar de gars yi daal ñu ngi ñuy koj fu ne duñu teg lu ne duñu wan lu ne pour lan bëgguñu bàyyi la rek Moussa ne muñ rek qaala Moussa wax li xaw mi ñeel bokki boppam ya istaayinu jéem leen a dimbandikoo billaahi ci yàlla dénk leen seen lépp yàlla wasbiru ngeen muñ lii leen di teg leen kawan innal arda wér réew mii lillaahi yàlla dong ko moom pouvoir bii yàlla kese moo ko moom yurisuha dana ko donnuloo man yasaaw ku ko neex min ibaadihi ci jaamam yi pouvoir boo fi gis pouvoiru yàlla heure bu neexee yàlla mu jëlee ko ci loxo yóbbuwaat ko ci loxo bu ko neexagul nag boo ne day jóge ci loxo jëm ci yeneen loxo dangay ngay sonn rek wala akibatu mujj ñu sant lil muttaqiin ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom subhanahu wa taala xaalu gaa yi ne firaaw na yow daal wusi naa loreef nañ ñu min qabli an taateenaa la njëkk nga aywa jazakallah ah waaw def na ko kay faq di ma antaqaat innama taqdi haadihi l-hayaati dunya mhm. dégg nga aha loo teg xaalu ñu ne yent yàlla Moussa usina loreef nañ ñu min qabli an taatina la njëkk nga ñu ñëwal avant nga ñu ñëwal lu ne firaaw na wan nañu ko lu ne lu ne teg nañu ko wa min baadi maa jiitana ak gannaaw ba ñu dikkale itam tabaarakallaahu ñu nangul la tax na lu ne nit ñu koy teg xaala Muusa ne asa rabbukum amaana seen boroom an yuhlika mu alak duma aduwakum seen noon bile di Firawna dana ko folli léegi balaa mu yàgg wa yastaxlifakum mu remplacer leen fil ardi ci kaw suuf si fa yanduro mu xool kayfa taamalu naka ngeen di jëfandikoo bu fi jëlee ñeneen indi leen fi yéen naka ngeen di yore pouvoir bi ndax da ngeen jubal wala du ngeen jubal maa xool loolu ngi bëgg lim ay mbir yoo xam ne nag yu mu jaaroon nag ñoom la pour mu bëgg ñu nangu wala kalaakas naa jàppe woon nañu aala na waa kër firawna bi siniin caayaati bekkoor wa naxsin ak wàññeeku wàññeeku ak manqué manqué ne samaraati ci ay xeeti meññent bekkoor ndax la ñoom yatazakkaru ñu waaru delsiwaat seen borom waaye fa idaa jaadum ndegam ñëwal na leen alxasanatu yiw naataange lépp yi dox xaalu ñu am fitu wax ne lanaa ñeel nañu haadi lii lii daal dañ kaa yelloo au lieu ñu sant yàlla ne liggéeyu mag ñi la waa baax na waaye in tusibu bu leen gisee nag sa yaatun ñaawteef bekkoor xat-xat kiris ya tay ya ñu jéem a gaafal bi Moussa ci yent yàlla Moussa ne ba fi Moussa wootee diineem ji woote fi lii mu fi woote te maam ñu musuñu ko xam ci la li ñu dal ci la ñu dal kiris bi ñu dugg Moussa ci la bàyyi ko on maahu yàlla ne leen déet bàyyi leen seen caaxaan alaa dama ne innama tairuhum du ma lu seen gaaf daal li leen yóbbee lii li bekkoor beeg xat-xat yeeg jafe-jafe yi indallaay fa yàlla dong la bàyyi ko te yéen a def lu tax mu bàyyi ko ci yàlla walakin waaye aksaruhum lépp ci ñoom mm. laa yaalamuun mm. xamuñ dara ci li ñuy wax mm. dégg nga uh-huh.